ñaar da nga ne carrément secteur secondaire tertiaire mais tertiaire l'agriculture suivre par dama ne la man damay yëngutu ci économie dama dañu yor ay entreprise nekk ñu ay nit yoo xam ne dañuy wax pour wax nii xam nga ramassé nga wax yëpp man du ma stop bi ñu defee diagnostic dama ne la ay diagnostic Dubaï mooy premier producteur de gaz gaz bu baax laa la wax waxuma rek am naa gaz nii gaz yi dafa am ay façon wi gaz yi gaz dan ne Sénégal dina nekki moo tax booy dégg sur le plan sécuritaire on avait débattu même si commission sécuritaire bi ñoo bokkoon sur les tensions économiques ak tamit yenn ressources yi. Mm-hmm. am na yoo xam ne du ko def parce que j' étais dans la commission paix et sécurité ak ñoo xam ne si si ci produit yi la ñuy liggéey xam man du ma wax lu ma liggéeyul du ma si weranteeg yow Algérie yooyu nga wax dem naa fa parce que damay liggéey si domaine boobu du ma si werante ñooñu lu ñu yor ak Sénégal lu ñu yor bokkul gaz yi gën Émirats arabes la nekk bi ñu gis ni moo gën Sénégal la nekk. ok mooy Sénégal moo tax ñu ne Sénégal va basculer comme un deuxième pays à part ay Dubaï ko moo tax sur le plan terrorisme sax gars yi dañuy viser naan pays yoo xam ne dañuy yor ay yenn ressources yi moo tax ñuy souvent ñu naan pays yooyu les financeurs ak apporteurs de capitaux yi fa la question de d'industrialisation question xel la question ay préparer sa dëkk la complexe mooy toog naan. ay non non àggoon non. loolu jéem boo ko mun dafa am ay sénégalais yoo xam ne dama ne dafa am sénégalais yoo xam ne dafa am leen loo xam ne dama bañ bu tuddee le code des marchés dafa am yu bëri yoo xam ne dafa am loi yoo xam ne ñooy freiner yenn om d'affaires pour ñu accéder au marché parce que tey jii bu fekkee dañu lancé ay appel d'offre say doomu dëkk mun ñu ko gañee wala dafa am conditionnalité yi ñu si teg yoo xam ne yenn géants yi ñooy ñëw tey jii ñooñu bu ñu ñëwee te amul si si Thiès ay transfert de technologie ñooñu bu comme lu mel ni ay terre bi ñu koy def am dafa am ay transfert de technologie pour nga industrialiser nag sa dëkk dafa am ay pan yoo xam ne da koy teg day méngoog loi yi fi nekk ak code de marché yi fi nekk nga mën a impulser financer sa économie mais bu fekkee ne yow mënoo fi non attends économie da nga koy financer. Aïcha man soo ci may